tey fii ci parc bi nga xam ne Abdou Lahad Seck Sadaga moom moo ko fii ci Touba nga affaire yaa ngi nii animaux yi ñu àndoon ak Thioune Boutique ñëw visiter ñu li jasi la xam ne Abdou Lahad Seck Sadaga moom moo ko fii ci Touba ñu àndoon ak Thioune pour deux de voies bu mag bi ñëw visiter bi man de am na yu ne ci kaw cuun. cuun boutique ma xoolal ci kaw. mun ci ànd jëli ñàngoor kii. kii da nga def barière. cuun moytul cuun seexu na ndox mi yóbbu ko ci kii bi yóbbu ko ci ker bi waaw li mooy mbaamaal waaw waaw mooy mooy leen bëñi ngare quoi ñun ñoo leen nàmpal ba ñu toll nii ah bi leen di jot booba xale yi tuuti lañ ñoo leen nàmpal bañ toll nii. daal yow loo gis lii de moom. yaakaar naa ñëwal. di la sant yàlla. lii de da ngaa Firma la la tampere. La tampere, la tampere. Mas. Ah. waa Sénégal man la cun birig borom kontaan naa ci abonné kontaan naa ci sami tey maa ngi ànd ki xam mooy Mass Comedy ak Fallou Ndiaye ñëw seet si ki nga mooy Abdoulaye Sadaga nekk doomi réew mi euh, nekk doomi Sénégal te lii du ko neexoon tey naa dem ba Dakar defee ko fa du ko neexoon mën na koo defee feneen waaye du ñëwee ba Touba def yu mel nii teranga yu mel nii mooy bëgg na xale dëkk bépp ñëw di ko xool si ànd seen njaboot di ko xool si te fii doo fi ñëwee macha allah hectare bu yaatu la boo xamante doo ñëwee lépp a fi ne am na ay gaynde am na ay bukki am na ay segg ah am na ay jaan lépp mi ngi fi mi ngi noonu su Ablaye Seck Ablaye Seck Sadaga moo koy jox moo koy jox waaw. gis ni muy ni muy yuuxoo. bu pour li ñu def nii dañ jël heure compte leen heure bi leen compte moo tax ñuy daw di jooju loolu mooy tax ñuy nangoo di laal ndànk-ndànk ci lay demee ba dootuñu am problème. non des na parce que salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna tey ñi ngi ànd ak Thioune Boutique mu nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté ñu ñëw fii ànd tamit euh, koo xam ne Touba ñëpp xam nañ ko Bawal Sénégal ñëpp xam nañ ko muy Abdoulaye Seck Sadaga mu investir Touba loo xamante ne nii ñun ñekk ku nekk bëggoon ko investir mais yàlla ci loxoom la ko jaarale muy ay millions ay millions xaw ma ay milliards ay milliards yu takku xaalis bu takku daal la vraiment tey ñu ànd ak Thioune Boutique ñëw Thioune lan nga wax ci bi nga gisee liggéey bu sell bu bis bu mu def Touba waaw li may wax moom mooy euh, kontaan rek euh, am mbégte hmm. ndax euh, lii du ko defee euh, du ko defee da ko dafa wàcc dëgg la ndax ñëpp xam nañ ki ko tuddee muy Cheikh Abdou Lahad Mbacké mhm. ci fulla ja ak ñàkk caaxaan ka dëgg la Sëñ Tuubaa gi mhm. ñëpp xam nañ ko Sëñ mhm. euh, moo def lu kenn mës a def muy daare kaamil waaye nag turandoo bu ñu def lu kenn mës def mu jël ay gaynde jox ko addiya kon da ngay xam ne dëgg-dëgg Sëñ Abdou rek moo desiwaat foofu di ko wax nag ne ko vraiment lii nag moom waa Tuubaa gépp kontaan na si képp ko di murid wala tijaan kontaan nga ci parce que tax nga kontaan ci mooy lu mel nii doo ko masaana gi da dem parc an hmm. mais tey nga ñëw ba doo nee Touba tey am loo xamante ni moo raw parc an tey loo soxla dafi am hmm. tey ay jën hmm. ah ay jaan ah ay jësit lépp am na fi lépp kon damay wax waa Touba képp ko xam ne ay jàmba jub ay jàmba jub yëpp am na fi léegi nag damay wax ne yéen ñi xamante ni a mm. bi mm. euh, mën ngeen a ñëw léegi leen wax comme tey doo ñëwee ñaata ngay dagg tige mm. pour dugg pour def visite yaa ngi dégg am na dañuy am na interdit ay xale yu ndaw wala ku bëgg a ñëw mën ngaa ñëw yooyu yëpp après siñe blan sadaga danañu indi ay leeral incha allah rabbi dëgg la waaw ndeysaan kon waaw Cheikh Abdou Lahad bërëb bi waaw fii de mi ngi tudd ferme agricole Sëñ Thierno Seck Sadaga ñu ngi leen di sant gërëm leen di nuyu Thioune ci hmm. taxawaay bi di leen sant yéen ci seen taxawaay. parce que li ngeen def lu rafet la. Hmm. ñun fii ferme la boo xam ne ferme intégrée. Hmm. ni mu ko waxee euh, am nañ bukki mbaam àll jësit jàmm jóob mais euh, ak euh, jësit. ak yeneen ak yeneen mais li ci ëpp ak saaw saaw gis tamit ay kii ay yëpp nopp si njaboot yooyu yëpp goloog mais am solo mooy dañ cee boole waale di yar ay yamb yamb yi ngay dégg Touba hmm. ñu leen di wër yëpp ñuy indi jafe-jafe ci dëkk bi ñoo leen di jël di indi fii hmm. ci côté ba lañ nekk hmm. di fi am di fi produire lem ginnaaw bi nag gaynde yi ñu ñëw ginnaaw ñu jëlee leen Afrique du Sud tey lii li tax a jóg lii parc la. parc lañ créé boo xam ne ñoo bëgg waa Touba di am visite. au lieu que ñuy dem fenn ñu ñëw fii di ko fi defee. ci biir loolu gis ngeen dañu def pisciculture yar jën. mais loolu nag mooy li am solo. loo xam ne dëkk bi moo ko moom. Euh, lii yëfu dëkk bi la dëkk bee ko moom. dëgg la ñëpp a ko bokk. parce que lii géey nii amul aw ma droit rey leen. Mm-hmm. aw ma droit mm-hmm. euh, jaay leen. Mm-hmm. ma droit maye leen. aw ma droit jox ko kenn lu dul téye ko fi yar ko di leen toppatoo biñ koy dee sëñ Muntaxa it bu wan ko ko hmm. sëñ bi nañu na ngeen leen toppatoo tudde leen Matlabul Fawzayni hmm, tudde Matlabul Fawzayni leen tudde dafa mel ni gis gi leen sëñ bi gis hmm. ak ñaan nga am na lu mu ci tekki parce que may nañu ñun ñuy ñuy gën di man ñu ñuy jëfandikoo ñoom te te lii lu jafe la parce que amaguñ fi une semaine te gis nga ñu commencé di ñu nangu loolu lu am solo lu am solo yàggatul nag ñu commencé def ubbite gi comme ni ñu def visite mais mhm. loolu commencé guñ ko commencé wuñ ko parce que dañoo nekk ci yenn yi fi nit ñi yem fii mhm. xale fi nit ñi yem mhm. ñu koy tere nit ñi waruñu ko passé parce que fii ñu taxaw kenn waru fa buñ paree ci li ñu def kenn waru fa kenn du fa taxawat li tax ñu def lii mooy comme dañoo bëgg a wane mhm. moo tax ñu def loolu ak jël luñ font mhm. moo tax ñu ñu egsi fii mhm. mais bu tey passé bu bu fan yi passé dootuñu nangu kenn egsi fii parce que fii eh, maay doon kii waaw dañoo doon lekk bu bëri bu ñu lekkee ba xas rek rek ñu am suukar soxla mm-hmm. ñu dem ak seen bopp mm-hmm. mais loolu nag ci yooyu lañ nekk préparé daal moo xam mm-hmm. ne kenn du extion na la yóbbu ci jën yi seexu na sox naa kaa yóbbu ñu ci jën yi ah ñun daal kontaan nañ lii moom vendredi jot nga ànd ak sa njaboot dikk visité lii dafa neex daal dafa neex xool affaire yëpp parce que da gis ku jógee fii fay xaalisam dem ba Dakar di visité mm-hmm. ak école yi nga xam ñi ci biir dëkk bi ak yeneen ak yeneen kaay kaay kaay kaay lii daal Abdoulaye Seck Sadaga yow lay fay parce que lii nga jël xaalis bari millions yu toll nii investir ko fii kaay kaay mm-hmm. am am indi benn kaay kaay am kaay kaay kaay koy woowaat de cuut koy woowaat de. kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay